أرجت قصائدي قلوب الحملاء براسي وهي كسر للكملاء هاجت قصائدي قلوب الحملاء براسي وهي كسر للكملاء هاجت قصائدي قلوب الحملاء براسي mënul dugg fi du ko gis quoi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

safi amaani wazir bara i barkem maam cheikh ibrahima fall asalaamualeykum yéen mbokk yi rawatina mbokki taalibe yi nga xamante ne yéen a ngi bàyyi xel saa su nekk seen télévision bii di xasaay tv di la première thématique sur xasaay de Khadim Rasoul ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa di julli si sayiduna muhammad rasulullah sangub sang yi di ñaan tey ñaanal tey siyaara saa su nekk xalifa sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiru Mbàkke xaadim rasul mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal te di ko siyaaraat sëriñ Amdi Moodu moom sëriñ Mouhamadou Mbenda Fall moom mi nga xam ne moo fi toog jotaay Cheikh mu yàgg fi lool te ànd di ko ñaanal njabootu sëriñ bi mboolem kilifa diine yi ak mboolem kilifa aada yi yenn mbokk taalibe topp liggéey bi saa su nekk si waxtu bi seen émission mbégum xaside yi nga xam ne dañu koy ànd ak yéen si altine àllarba ak ajuma euh, am nañu mbégte amaan nañu mbégte di janawaat ak yéen nag tey di leen tuubal ndax xam ngeen jamono yëpp gis ngeen émission yi nga xamante ne dañu ko doon réduire dafa dogaloon suñu borom ak i sababam rek sama yaram xawoon sutante wante am naa tawféex am naa tan bu baax te lépp seen ñaan rek moo ko waral kon boog ñu ngi jéggulaat bu baax a baax di tuubaat bu baax a baax wante di amaan mbégte rek di janowaat ak yéen ndax namoon naa janoo ak yéen ngir bégal leen si li nga xamante ne moo di mbégum murit yi rawatina kinaamay sëñ bi nga xam ne moo di xasidaam yu tedd yi mbokk taalibe gis ngeen Euh, ñaari semaine si ginnaaw gis ngeen ndigal lu am solo bi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir woote woon na ko di 24 heures la non stop ndax sëriñ bi dafa waxoon day sant sunu borom si turu yàlla fas yéene ko njukkalee kii di maam Cheikh Ibrahima Fall te ndigal loole yaakaar naa ne ku seetaan image yi xam nga ni yoonu murit gépp rawatina Baye Fall yi jëfe ndigal li ndax boo leen déggee si kàddu gu mujj di kàddu sëriñ bi ba muy ñaan nee na defee ngeen ko ni ma ko bëggee kon boog alhamdulilahi rabbil alamin dañuy ñaanal suñu borom sëriñ Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi di ñaan mboolem yoon bi rawatina Baye Fall yi nga xam ñoom la santoon liggéey bi ñu yàgg fi loolu tànn ak wér euh, ñaan googee di si jiidal sëriñ Amdu Moonu Mbenda mi nga xam ne moo fi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall mbokk mbégum xasida yi la ñuy wax moo taxit gis ngeen tey àllarba ji mbokk bi dañoo fas yéene bégal leen si animation bu tàng jër incha allah moo taxit dañuy dem région incha allah ñu teewlu benn daaju xasida dikkaat fii rek wéegeen si li nga xamante ne moo di émission bi mbégum xasida yi waa régie bismillah yaa waa régie jërëjëfati waa daara xisbu tarxiya euh, cellule Sacré Cœur ñu gën si ràññee Serigne Makhtar Diène Serigne Joxaane Serigne Mbaalo Serigne Mohamed Kassé ak ñoom ñëpp gis ngeen vidéo boobee bokk na si vidéo bi nga xamante ne dafa defar lu bari si yoonu murit mooy seen siyaar bi nga xamante ne moom la ñu amaloon si Serigne Mountakha Mbacké Bachir le 3 juillet 2021 gi wees di bi nga xamante ne daanaka lislaam gi rawatina yoonu murit gépp dañoo am mbégte mbégte goo xam ne foo ko natt wees na ko si doxalin bi wàccaay yi ak jëf ji ak tawfee bi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir defar na ko ndax gis ngeen ñaari daara yi liggéey bi daa doonoon benn ñu toog ñaar fukki at ak lu teg liggéey bi def nii wante lépp sëñ Tuubaa rek la doon daje xalifa sëriñ Tuubaa bii di sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ba mu ñëw yeesalaat liggéey boole ko yi fi nekk benn looloo doonal mbégum murit yépp kon bokk ñu ngi ñaanalaat sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir mu yàgg fi lool te ànd wér di ñaanal daal Hizbut tarxiya si liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Tuubaa di ko manager yoon bi di wane nan la ak naka la si jëf si pas-pas si col si doxin si charisme ak si incarnation yal na leen suñu borom gën a teg loxo si barkeb sëriñ bi ba lépp lu ñu mën rek seen mën di gën a yokk di gën a xa ndax ñoom da ay sak lañ te képp ko xam suñu borom daf laa dimbalee nga wiyoo taalibe sëñ Tuubaa rawatina ngay laxasaayu mooy ngay sol sëñ bu ngay sol baylaat ngay sol maxtum wala ngay kuréel kat bu fekkee cent pour cent quatre-vingt pour cent yëpp si ñoom nga ko royee kon boog ñu ngi ñaalaat jëwriñ Serigne Youssou Diop suñu borom yàggal ko fi di ñaalaat suñu jëwriñ Serigne Mbacke Thioune mu yàgg fi di ñaanal jëwriñ instant yi yëpp foofu lay jaare siyaare sama bàyyi sama xarit Serigne Abdoulahi Mbuub namm naa ko lool borom xam-xam bu sell bi borom xam-xam bu rafet bi maa ngi koy siyaar bu baax di ko nemmeeku. di siyaare suñu doyen si liggéey bi Serigne Mouhamadou Lamine Diouf mi nga xamante ne saa su nekk da ngeen koy gis muy def émission yu am solo fële si Al Mouridiyyah di leen fàttaliwaat rek mbokk yi euh, événement bu am solo bi nga xamante ne euh, moom mooy euh, lancé waat travaux yeesalaat këru xasde bi nga xamante ne ndigalu Serigne Mountakha la woon Baye Atou Diagne sunu borom yal na ko yokkay leen tataan ñu su barkeem. jiitoon liggéey bi ba ñibbi na liggéey bi nag dañ koy yeesalaat si ndigalu seen Yuusu Jóob mi nga xamante ne moo fi toog jotaay sañ aatu toog si bopp Hizbut Tarqiyyah gépp assemblée général bi euh, le 8 lay doon incha allah bu soobee yàlla fële sa Touba si université bu soobee yàlla dana yaatu lool te it bu fekkee dafa aajo direct di ngeen ko am si Xasaayid TV incha allah bu fekkee daa aajo PD. Euh, PD PD PD pré à diviser PDF incha allah tamit da ngeen am image yi bu soobee yàlla ndax gis ngeen liggéey bu tàmbalee lu ko dalee depuis le 2 janvier ba tey suñu mbokk almouride ñu ngi def plateau yi am solo ngir gën a marale leen si liggéey suñ tubaabee rawatina gën leen xamal li nga xamante ne moo wund ak sumb bii di kërub xasida bi ñu fas yéene taxawal fële sa université ba gis ngeen sunu mag suñu jëwriñ si liggéey sëñ Abdoulaye fay mu ngi koy juré di plateau yu am solo di sàkkuwaate képp koo xamante ne suñu borom dimbale na jot gi nga teelu sa Al Mouridiyyah rek incha allah bu soobee yàlla euh, chaque jour à partir de vingt et une heures vingt deux heures incha allah mbokk taalibe yi mooy boobu nga xamante ne ñu ngi ko doon teg léegi maa ngi koy may samay wëllëre samay jëwrin ku mel ne Serigne Mbacke Babou depuis Touba sopp Hizbut ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di siyaare sëñ Fallou Niang tubaa alam go ñu ngi koy béggee bu baax a baax di ko siyaare di siyaare soxnaam ndax xam ngeen fan yi la doon ceetal wane maa ngi siyaare kenn si man koo xam ne euh, moo di imaam di Baye Fall di jàmbaar loolu si liggéey bi di prince day Baye Fall ndax di doon jël soxna semaine gi passé ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ndokkale di ñaan suñu borom defal ko koy tawféex defal ko ay ndam defal ko wér suñu borom. dàkkal ko lépp lu yàq rek yal na ko suñu borom dàkkal te barkeel sëy bi ñu am si njaboot gu barke ndax imaam kat mbégum muriti la te it mbégum Baay Faal ya kon boog prince ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di ñaan suñu borom dafa lay toofeex si sëy bi nga xamante ne dugg nga ko si barkeeb maam Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi mu mel ni mbégum xasida la ñuy wax saa su nekk ndax xam ngeen sëriñ bi du ma tàyyi si di ko wax ndax la répétition est pédagogique sëriñ ba karaamam xasida yi képp la karaamatu xatu yadi fi xidmatil mu ay yadi wa kaanale bul af yadi allahu moo leel karame moo taxit foofu duñ fa jóg dañuy delluwaat rek incha allah ñuy teewlu beneen daaju xasida mu gën a yaatu rek ngir fas yéene bégal leen si àllarbay cay ndax xam ngeen mbégum xasida yi gëj ngeen gis ay invité wax ñoo nekk si liggéey yeesalaat recyclage bi nga xamante ne bu noppee rek da ngeen gis beneen facetu mbégum xasida yi moo tax bu leen yàkkamti xaar leen rek liste d'attente bi bari na plausibilité bi bari na wante ndànk rek mbokk yi da ngeen am lu kawe seen jot te bu leen ko waxee rek dana am ndax yaakaar naa lépp lu ñu leen mës a dig rek defal nañ leen ko kon boog waa régie bismillah Is it حيث jërëjëf waa régi jërë ngeen jëfati mbokki taalibe yi ñu ngi santaat bu baax a baax daara Hizbut ba tey si continuer mois bi nga xamante ne euh, bokk na si xasida wala daaji bees yi nga xamante ne moom lañ doon waajale seen siyaaru édition 2021 bi passé si euh, xalifa sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa Mbàkke Bachir fële sa pencum daaru mi naam ni ma leen koy waxee sàng si tàmbale bi mu nekkoon siyaar bu ama am solo siyaar bu yéeme siyaar bi nga xamante ne li mu lijjanti li mu gàgganti li mu nas dafa bari lool loo xam ne amaana aajotul sax ñu ko tudd ndax gis ngeen ko seen ay bët ci image yëpp à travers le monde entier wax ba tey moyen bi dañ ciy bégalee soxna Ndey Jóob depuis itali ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko siyaare di ko nemmeeku di ko jox wàccuwaayam di kenn si man sori si man lool ñu ngi koy siyaar bu baax si mooy bi wan di siyaar rakkam sëriñ Xaadim Diop soxna Musli Diop ak sunu yaay soxna Fat jóob ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bokk si waa kër Masamba wane fàttewuñ suñu waajur bu góor fàttewuñ suñu xarit sëriñ Ibrahima ñu ngi koy nuyu bu baax a baax soxna Fat Diop Italie fàttewuñ ko ak boroom këram sëriñ Mouhamadou Lamine depuis Thiès ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax wante fàttewuma sama sœur soxna Jaari Jémme borom këram Serigne Badou Fall fàttewuñ ko benn yoon fàttewuma sama yaay Bintu Laari jóob maa ngi koy nuyu bu baax di ko nemmeeku Ndeye Rama Jéeme ak borom këram depuis France fàttewuma ko Maram Diaw fàttewuma ko Babacar borom këram fàttewuma ko euh, Bachir sama nijaay Bachir Diop fàttewuma ko Sono Fall sama yaay sama mag fàttewuma ko wante fàttewuma Pape Adjuma Jéeme mi nga xam ni. lépp la si man fàttewu ma ko suñu yaay ceebo fàttewu ma ko suñu yaay ndey daba wu ma ko wante ñu ngi bàyyi xel tey ñaanal saa su nekk suñu yaay maam xaar jóob suñu borom yokk leeram te ñu si barkeem fàttewu ñu Hélène jaw depp itali ak Murit ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen nemmeeku di siyaare waa famille jóob gépp di siyaare famille Diaw bépp di siyaare famille Jéeme gépp ndax foofu sama kër la foofu laa yaroo foofu laa màggee foofu laa xàmmee sama lépp foofu la kon mbokk maa ngi bëggee waa kër googee yépp di leen ñaanal jàmm tawféex ak mucc ak xéwal ba faw ñu ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal ñépp mbokk yi gis ngeen sàng ba léegi ñu ngi ànd ak yéen si mois bu bu am solo boobee nga xamante ne wax naa leen léegi kañ lañ ko jàng ak composant yi nga xamante ne euh, euh, ñoo ŋànk kuréel bi waaye mbokk yi xam ngeen seen émission mbégum xaside yi le 6 janvier bii bës ni gis suba incha allah lay am comme tey la cinq bës ni gi suba incha allah lay am deux ans ndax xam ngeen émission bi ñu ngi ko tàmbalee woon le 6 janvier 2019 daaw la 20 le le deux mille 2020 ñu defoon plateau bu am solo bi nga xamante ne dañoo waxtaanee woon la l'ascension de la Mouride yoonu Mouride. dox gi nga xamante ne dox na ko si bu gaaw à travers daara yi touche buñ si def ba yoon bi ak si mu fii ñu ngi ci sant ñëpp si ñi nga xamante ne daaw teewoon nañ si plateau bi intervenant yi ak invité yi ak invité d'honneur yi nga xamante ne ñoo nekkoon waa Kënzul Muxtadin di suñu ay mag di suñu ay magum taalibe wax na mbokk yi gis ngeen ren wax naa leen ko sànq bés ni ngi suba incha allah mooy nekk deux ans bi te dañoo fas yéenoon def plateau bu am solo le 15 janvier bii di ñëw mais samedi bii ñëw bu si topp wante xam naa mbokk yi dañ leen ko tubal daal di dog ngànti rek ndax xam ngeen euh, Serigne Mountakha Mbacké Bachir ba siir mu boolee ñaari liggéeyu daara ji ba tey dafa am liggéeyu salaat bu am solo bi nga xamante ne dañu soo nekk boobu ba léegi mooy boole commission yi boole poste yi dafa recyclage membre yi ak yu bari xam nga ak liggéey bu màggee noonu ak assemblée général bii ñëw ak ginnaaw assemblée bi yeneen yi nar a xew moo taxit euh, ñu oyofal suñu jëriñ si turu Baye Ndiaga Diop maanaam di dog ngan si téléspectateur yëpp ak képp nga xamante ne euh, dafa doon xaar deux ans émission mbëggum xasida yi maam lañuy dàkk date le 15 janvier bi ba si yeneen ay bés ba bés suñ ko jàppee rek incha allah dee leen ko yaatal fii incha allah. ndax ren dañoo fas yéene woon def thème bu am solo muy euh, la démonstration de l'essor ndax xam ngeen euh, sëriñ bi euh, dañoo dem ba ay jamono gis ko mu perse ci milieu universitaire yi mille scolaire yi te ni mu percé ci école yi ñi nga xamante ñoo nekk ci école yi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa dara seen njàng yàkkuwul te teewul ñu ngi si liggéeyub si si xasida yi si jëf yi ak si daayira yi te dañoo fas yéeneen invité ay universitaire ay jëwriñu confédération ay jëwriñu fédération ak ay jëwriñ yi nga xam dañoo bokk si instance yu gën a mag si réew mi nekk fa murit am fa daara loolu moo nekkoon butu deux ans émission euh, un an plate spécial mbégum xasida yi te xam naa loolu incha allah bu soob yàlla ñu ngi koy jàpp ba tey ñu ngi maintenir suñuy invité ba tey xam naa lii lépp bu ñu ko lijjantee ba mu jàll si jàmm danañ jàpp dat incha allah ñu mën a euh, wéy li nga xam mooy suñu yéene mooy digg bi nga xamante ne dig na leen ko mbokk taalibe mu muy deux ans plateau émission mbégum xas yi ñu leen koy jégaluwaat bu baax a baax a baax mbokk yi mbokk yi dañuy delluwaat dërësi rek béggalante ak yéen laal leen si li nga xamante ne moom lañ tàmbalee tey si àllarba ji waaye rek ci bismillah mitadi wa qalami wa من يلتأم في كونه Naba régie jërëjëfati kuréelu Serigne Abdoulahi Diop di tarxiya cellule mariste si daaju mi daa di enchaîné ko rafax naa daaju Baye Mbacke Fall mi nga xam ne si version yu bees la ndax xam ngeen daaj moom euh, saa boo koy déglu rek di si découvrir yu bees yoo xam déggoo ko ndax gis ngeen cinq ans dix ans si ginnaaw Baye Mbacke Fall bu ñu doon jàng wute nag Baye Mbacke Fall léegi. dix ans quinze ans sëñ Massamba bi ñu leen jàng wuute nag sëñ Massamba léegi ba tey sëñ Massamba la waaye dafa ma yokk yi nga xamante ni dañ ko découvrir sëñ Abdoulahi Diop sëñ Maxtaar Jenn moom defaa ko si njàng bi ngir mbokk taalibe yi jëriñoo ko ngir xam ni rek jàng moom euh, mag bi du fa jóg cosaan bi du fa jóg waaye li bi li si biir njàng bi saa su nekk mën nay soppeeku si xeetu way si xeetu systématisation ak xeet yu demee noonu moo taxit fa laa jaaree siyaare mbokk yi euh, kuréelu sëriñ Massamba yëmbal ñu ngi leen siyaar bu baax a baax kuréelu sëriñ Massamba bu parcelle ñu ngi leen siyaar bu baax a baax ñu ngi siyaare waa daara asxaabul jannati Touba June ñaar tali waa kër sëriñ Moustapha Mbacke maamu Cheikh Modou Fall ñu ngi leen di siyaar bu baax di siyaare kuréel asxaabul jannati gépp sama gars yi tàmbale bi sëriñ Alaaji Siis mi nga xamante ne mooy daaj kuréel bi euh, ba si ki gën tuuti mu di sëriñ Ousmane ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen nemmeeku di leen jox seen wàccuwaay wane mbokk yi mu mel ni waxtu gu ñu joxoon mat na wante laata ñoo tàggu yéen rek day am yenn euh, kàddu soññe ak kàddu leeral ak baaxantal ak baaxe yoo xam ne mënta ñàkk ñu biral ko fii ndax xam ngeen seen émission mbégum xasida yi émission la bi nga xamante ne saa su nekk dañu fi dalal ay jàngkat ay ay boroom xam-xam wan saa su nekk tamit dañuy ànd ak si animation wante noonee ñuy ànd ak si animation léeg-léeg dañu leen di àndil li nga xamante ne moo di euh, événement ak programme yi nga xamante ne mu ngi suñu kanam ak li nga xamante ne ay gis-gis la te mu nekk si yoon bi te mu jara moytu moo taxit foofee euh, dañuy soññee rek ndax léeg-léeg da gis benn mbokk taalibe bu sol ab baylaat wala laxasaay saf sàpp ak murit nga xam ne kii murit la ngeen di rombante nii te yaakaar naa loolu mën naa ñàkk ndax xam ngeen saa irma mbëri dañuy wax ñoom ñooy mayante xaalis wane si baatin si dëgg-dëgg liggéeyal suñ Tuubaa suñu yaakaar teeg ëllëg ñun ñoo war a bëggante ñun murit ndax Sëriñ Tuubaa eh, ñaan na ko suñu borom liggéey na ko fi te bàyyi na ko fi kon mbokk mbëggeel googu dafa war a sax dafa war a law ba saa bu ñu romantee donte xamoo turam sax waaye boo gisee ne kii mbokk taalibe la te ñoo bokk yoon bi faral di nuyonte waaye léegi da gis sëriñ Ahmed Fall day romb sëriñ Moussa sëriñ Moussa di ko xool pour ñu nuyonte waaye sëriñ Ahmed du ko faale te loolu mën naa ñàkk ndax ñun ay murit lañu ndax murit yëpp war a xamante donte demlante gi mënta nekk waaye xamante gi mën naa nekk mooy sa mbokk murit boo romb ah nga xam ne kii murit la na ko nuyu murit maa ngi siyaar maa ngi lay nemmeeku maa ngi lay jox sa ndax. loolu kat mbokk taalibe yàqul dara ndax loolu ay yiiw rek lëf lay jural kon mbokk nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaye mbokk yi <coughs> laataa ñoo tëj dañu leen fàttali rek programme yi nga xamante ne mu ngi sunu kanam ndax xam ngeen waxoon naa leen ko fan yile euh, dañoo toll si moment bi nga xamante ne mooy période ubbite bisub xaside yi ba na euh, waa kuréelu xidmatul xadim bu Malika ñooy amal seen bisub xaside dimanche le 9 janvier incha allah bu soobee yàlla fële sa kër sëñ Tuubaa ba euh, Malika bis bi nag euh, ñu ngi ko tubbee Serigne Bassirou Mbacke Xaadim Rasul nga xam ne ma may waajur sëñ Muntaxa mi nga xamante ne moo toog si jotaayam toog jotaayu Serigne Touba Xaadim Rasul te sëñ Bassirou moomee ñu tuddee ko Serigne Alioune Cissé mi nga xam ne moom mooy jëwriñu ëxlu mi naan bu waaga sëñ Blakim moom moo fas yéene def conférence bi ànd koog Serigne Abdou Khadir Diagne ci njàng bi. ak yeneen mbokki jàngkat yépp waaye danañ si ràññee teewaayu bàyyi lu ñu def xidma mi nga xamante ne bokk na si jëriñ olu xasida yi doon ku ku ñuy bàyyi xel doon ku ñuy déglu kon boog bis boobee waa kuréelu xidmatul xadim Touba Malika gépp ñu ngi si woo mbokk taalibe yépp di si woo daara alantuur yi daara yëmbal daara Sika Mbaaw daara Kër Masaar daara yëpp bàyyiwuñu si kenn bis bi doon dimanche le 9 janvier incha allah fële sa kër Sëñ Tuubaa bi yëmbal bisub adabil mardiya di bis bi nga xamante ne waa daara adab fare fële si université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom la ñuy waajalee wàccaayu màggal Porokhane bi nekk su kanam nga xam ne le 10 février incha allah lay doon xam naa émission àjjuma ji incha allah dinañ si ñëw lu yaatu bisu adab bi nag euh, le 7 lay doon incha allah fële si université Cheikh Anta Diop bu Dakar dina am lu bari loo xamante ne dinañ ko fa waxtaanee waaye si waxtaan kat yi ñu ngi si ràññee Serigne Abdoulaye Ndoye mi nga xamante ne xam ne ngeen ko fii si Xasaay TV di borom xam di fi joxe xam-xam di fi émission yu am solo mbokk taalibe yi looloo doonoon programme yi nga xamante ne mu ngi sunu kanam xam naa àjjuma incha allah dinañ ñëw ak yéen si lu gën a yaatu si programme yi ñu ngi sant bu baax mbokk mi yow mi doon teewlu ñu ngi lay sant bu baax di la jaajëfal di sant bu baax mbokk yi nga xamante ne yéen a ngi doon bàyyi xel si Akan TV bi si YouTube bi ak Facebook bi. ñu ngi jëfal ñëpp di sant bu baax Serigne Moussa Thiam mi nga xamante ne moo fare si wàllu camarage bi ak leeraay lépp ak assistance beeg réalisation bi utu matal Moustapha an kulli mafsaratin waltaraamil xalxa yaa man jaddahum badaa yaa maalikal mulki yaa man jallan xawadin irham jami alwara yaa haadiyan radaa utu matal Moustapha an man jaddahum badaa utu matal Moustapha si wàllu baadaa di wax si moom menace jërë ngeen jëf jaa ngeen jëfati.